asalaamaaleykum les L3S TV Sénégal info seen info point com may leen nuyu di leen ziare bu baax di leen wuy di abonné si seen bi di ko partager gars yi donc euh, nous sommes de retour sur l'actualité sportive de ce matin donc ñu ngi xaar ki nga xamante ne si moo di sélectionneur national Aliou Cissé si liste bi nga xamante ne si moom war na ko génne tey ngir gaynde Sénégal yi nga xamante ne si ñoom ñu war a teewal Sénégal fale si Côte d'Ivoire mooy Coupe d'Afrique des Nations bi nga xamante si la ñu jëm resté euh, deux euh, semaines avant le début de la compétition waaye nag yaakaaruñu kookee di Boulaye Dia suñu attaquant international sénégalais bu Salernitana ndax dina si bokk gannaaw siram yi mu amoon contre AC Milan donc Pape Daouda Diong moom international sénégalais bi bi nga xamante ni moo di Chelsea eh, ndax eh, diggante moom ak eh, Chelsea nag du yàgg dara moo confirmé moom nag diñu ko confirmé maanaam c'est confirme juin 2024 moom Pape Daouda Diong joueur wu Chelsea la donc ami site internet su si TV fii la ñu yemee ak yéen ba beneen yoon woy leen di abonné si